الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على الشيخ الخديم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور waxal bi arsida ijaxal bi jaahil mustafa kalaami ala idaaka rabbi kalkilaami bokki jullit yi bokki taalibe yi dinaa buñ santee sunu borom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sant sunu yaakaari tey ak ëllëg cheikh ahmadu bamba xaadimu rasul tey gën seeraloo sunu borom mi nu bind ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi tax nu bind nu sunu cant ci Serigne Touba cantu xol ak gu làmmiñ ci biir ak ci biti di nuyu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalib yëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di dellusiwaat ak yéen ci lu ko mat ci ku ko mat di fàttali koo xam ne kenn waru ko fàtte te jot naa ne kenn fàttewu ko muy as cheikh Ibrahima Fati maam Thierno di ko li mu doon ci sëñ Tubaa ku ko doon xiyaas doo ko mën a xiyaas ci lenn lu dul la Haaroona doonoon ci Moussa wala Seyduna Aliyun li mu doonoon ci ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam di ko xam ne léppam Sëriñ Tuubaa ci njëkk muy feeñ ak diirub li mu fu ne ba ci ginnaawam sax daraam gënut sëriñ bi li ciy finde mooy li jiitu muy gane àdduna bi mu tolloo ci waajtaay war a ñëw jamono suñ Mor Anta Sali mi nga xam ne mooy seen waajur moom ak sëriñ bi dafa wax sëriñ bi ne ko gan gii di bëgg ñëw de ci lay xoole sa mbir su fekkee ñëw na di góor ma xam ne fa nga jëm danga fa àgg li nga bëgg li nga bëgg danga ko am muy ab listixaar kon tax na sëriñ bi taxaw ca ci digguma ak boroomam taxawin woo xam ne bi mu ganee àdduna ak liggéey bi mu ko taxawul ak fi mu féete woon ci moom findeel na ko ci lépp wax nañ keroog muy feeñ jamono sax sëriñ bi dafa taxaw ci néeg bi nga xam ne ci la doon gane àdduna di wër néeg bi di tari alxuraan ci kaw bi mu feeñee rek mu bëtt loxoom ci permi joxe toqantal ji nga xam ne moo njëkk ci gémmiñam ganaar bi mu jëlal ko boppam téye ko ci loxoom yi tedd ya dem ak moom ba ci biir àll bi mu ne fa ab diir bi mu dikkee ne leen bunt yi seytaane am ba war a mën a jaar ci moom tëj naa ko na ko tëje nag moo ko xam bi mu demee ba war a mën a jàngit way juram di suñ Mor indi Sali dafa jooyal léppam jëmale ko ci sëriñ bi lu mu xam rek sëriñ bi yëpp ko xamal bi mu koy jàngal sax lu yéene lu yéeme am na ci ndax téere buñ tàmbalee jàng bu demee ba xaaj wala mu weesu xaaj wala mu bañ a àgg ci xaaj bi sax sëriñ bi day jékki-jékki ne ko fu ñu toll tey mu ne ko barab sàngam mu ne ko li ci des bàyyil mbokk dimbaleeku ko mbokk te bu xëyee lam jàngagut moom lay gën a dégg ci lim jàngoon loola di lu yéeme loo xam ne dox na diggam ak sëriñ bi sëriñ bi taxoo moom nag taxoo gu yàgg goo xam ne fu sëriñ bi masane rek falay ne jihaat ji sëriñ bi doon def jëppit ci biir ci xiif beeg tumuranke geeg marweeg jëm ci yàlla te bañ koo booleek dara fu mu ci mas a toll rek moom moo ma ko ànd àndin wu rafet woo xam ne dara mosu cee ñaaw ba looloo waral keroog bu sëriñ bi jugee fii war a dem ci liggéeyam bu barkeel boobu moom la dénk lépp loolu jëlatul di wax kenn ndax ñépp xam nañ ko waaye lii firndeel fi ko sëriñ bi tegoon rek ak ni mu doonee nderlaayam ak ni mu ko doo ni mu doonee ndimbalam ci lépp mooy bi ko góornóor di woo booba ñëpp ngi fi waaye moom la tànn ne ko demal wuy jil ma ndax booba dañ ne dañuy woo sëriñ si moom la sëriñ bi wax ne ko demal wuy ji bi mu demee it ci ak matam akuk matam li doon góornóor bi mu waxee moom ki doon jot ay waxam di def bu maam nu waxee mu seet lu tàng mu wax ko gouverneur bi bu gouverneur bi jottali ay waxam mooy mu seet laneen wax ko maam Thierno ci ak matam mu xam ne lii may wax ak li ni gouverneur bi tànge nii juddoowul ci li may wax daal di wax ki doon kaneen ne ko jëli kaneen koo xam ne ci xëy na bu dul taalibe sëñ bi ku bëggoon sëriñ bi la ne ko kii may jottali samay wax damaa jàpp ne li may wax waxu ko damaa bëggoon nga ñëw jot li ma samay wax bi kooku ñëwee wax gouverneur bi ne ko kii kat nee na dafa tuumaal ke ko doon jot lim bëggoon man ma jottali ko ay waxam ndax dafa jàpp ne lim li muy wax yow waxu la ko gouverneur bi ne ko waaw loolu mën naa ne mu ne ko léegi Ahmadou Bamba laa koy laaj ci lum ne ndax boobu léegi dañ koy yónnee ay bataaxel yu bari te nanguwul a wuyu si maam Thierno ne ko nee ko. benn bataaxel bu koy woode mosu caa jot fekk ñi nga xam ne yàq ak ruuxale rek moo leen ñoroon dañ daa def bataaxel bu ñu bind sëriñ bi ñu denc ko bu waxtu wi tontu yu li waree ñëw ñu wax gouverneur ne ko jot na ci bataaxel bi waaye nee na ñëwul ngir bëgg rek ay wi gën a diis bi mu waxee noonu bi maam Thierno waxee noonu gouverneur bi nag ci la woyefal tàngoor wi newoon ci moom ne ko jab yable woon naa sax ngir ñu dal si ci kawam waaye danaa leen digal ñu toog jeewal suba ci waxtu wi bu ko fa fekkul nag bum ñu bett des na dal ci kawam mu dëppaat ànd ceeg coono yu metti ngir bëgg a ci sëriñ bi jiitu waxtu woowu ñu waxoon di jot sëriñ bi it dara ump ko ndax boroomam bëti boroomam lay gisee gis na lépp ci guddi gépp mu ngi wax naan ndax ceer mi ñëwagul ñu ne ko ñëwagul ba bi muy julli fajar sëñ Abdul Ahad nettali na ko mi ngi naan ndax ceer mi ñëwagul bi mu jullee ba noppi fekk maam ceer nu es nee na ñu ànd jëm ci kër ga mu di ko bëgg a nettali aw yoonam sëriñ bi ne ko ceernu dara mutuma wax biig ca ngoon ba nga taxawee lu ci lu mel ne ab jànj ceddo yi wër la na la wóor ne xorandoom yi doon dox ci sa tànk sax maa ngi jàkkaarloo ñoom na la wóor ne na dem ma fenn damay liggéey rek sama njaboot gii rek laa la dénk ak sama liggéey bii foo leen mën a téye ci réew mi rek nag ma leen fa teewal ba ma liggéey ba delsi mu taxaw ci taxawaay bu rafet bu yéeme bu àndul la dara ci ak matali lépp mu def ko ci matt coono yu ne it mu daj ko ci àgg na ci fu mu dem rekk ñu jalax ko ba am na guddi goog wala ay guddi yooyu moom jabootuk sëñ Tuubaa gi amul lu dul mm, benn baas bu mu am wala benn mbalaan moom am muur leen ci moom fanaan ci biti ci ron ak guy ci loolu la sañce daarul mën naan ndax boobu sëriñ bi da nekkoon foo leen mën a téye ci réew mi rek mën nga faa dem téye leen am na wéri di gu amoon de goo xam ne lu ëpp ci njabootuk sëñ Tuubaa gi gi mu fi baawoon ci lañ wuyjee seen borom ba mu demee ba yëf yi mu ñaan boromam jaayanteeg moom ne ko su benn kenn ci njabootu Sëñ Tuubaa gii mu fi bàyyi naratee dem maa ngi lay ñaan nga jël ma jël sama waajuru jigéen jël sama njaboot gi te bàyyi ma fi njabootu Sëñ Tuubaa gi loolu jaayante bu rëy la bu dara munta fay la moo taxit bi sëriñ bi ñibbisee ña nga gisee ndar ci bis bii nga xam ne ci lañ koy wooteel bis biñ koy fàttali ko keroog bi ñu gisee ñoom ñaar ku ne nee na tekk ab diir bu yàgg boo xam ne kenn waxut sëriñ bi ne ko cer na ndax su fekkoon yaa dem bàyyi ma fi nii nga taxawoo yëf yi danaa ko mane noonu loolu lu rëy la ku sëriñ Tuubaa wóoloo noonu bàyyee la fi noonu te it lim rafetal ci ginnaawu sëriñ bi liñ ciy wax lépp li ko gën a yéeme mooy. keroog bi mu gisee sëriñ mu nee na ko sa ginnaaw de jàngal naa fi ñeen fukki nit ñoo xam ne alxuraan man nañ ko nañ ko war a mane te it xam nañ bépp xam bu am bu bu bu bu ñu war a xam ci lislaam loolu mooy kàng fóore boo ko déggee mooy alxuraan fóore mooy ku jeexal téere yi ne nag sa ginnaaw jàngal naa fi ñeen fukki kàng fóore yoo xam ne lépp lu ñu war a xam xam nañ ko lépp lu ñu war a man mën nañ ko ci la ko sëñ bi waxee waxam jooju ne ko ndax su fekkoon ma yaa dem ma toog fi nii nga taxawoo yëf yi ndax dinaa ko mënee noonu loolu di ngërëm lu sotti lu wér lu ko sëñ Tuubaa gërëm bokk na ci firnde ngërëm loolu it dëkkam bi mu sancoon te muy Daarul Manaan bi sëriñ bi ñibbisee diir li mu amaat ci réew mi ci ak dal fa la ko ne delluwaatut ci benn dëkk bu mu sanc delluwaatut fenn ndax booba xam ne liggéey bi jeexut te daa war a jàll fa la nekk ba ak demam gànnaar jot mu dem diir boobu bépp it tàqaliwu ko tàqaliwu ko sëriñ bi ci dara fu sëriñ bi ne rek fa lay ne ba ni sëriñ bi dellu see jolof ba ni muy demee njaareem ci biir nekkum jolof gi ci la ko doog a digal fekk suñ mbàkki kajoor wàccub liggéey mu digal ko ne ko na dem taxawu ji mbàkki kajoor ba mu fa nekkee ab diir ba njabootug suñ mbàkki kajoor gi dëgër mu woo wooluwaat ko yoon woo xam ne wala bokk dafa yónnee ci moom ne ko boo xëyee na xëyee Mbàkke Kajoor war aw fasam te bu mu ko dawal dawal bu gaaw na ko bàyyi muy doxeek sagoom mu tàmbali euh, njëlbeenu alxuraan fu kamil bi jeexee rek na sanc foofu te dudd ko Daarul Muxti bu xëyee Mbàkke Kajoor di tay ba téere bi jeex te santeeg mu tolloog foofu penc mi ne fi ñu ko denc tey mu sanc dëkk boobu bi mu ko dëkk sancee tumuranke gune fekk na ko fa ci aw mar ab xiif ñim àndaloon di ñuy jàmbaare jàmbaare léegi-léegi nit daana fa nekk ba mu yàgg dootu mën a muñ coono bi mu dem bakku fa waaye mos faa jóge benn yoon lu ne it liggéeyale na ko fa sëñ Tuba ci wàllu liggéey bay ak lu mu am lu ne rek ndaw yi nii lañ daa tegaloo ndaw lu ñëw ba toog la leen ndaw dellu te yépp ay àddiya lañuy yóbbu di sëfub dund di ko yóbbu ba am na sax àddiya bi joo xam ne bi nga ko yónnee sëriñ bi xam ne ab xaalis la dañoo jaay xëy na mbay mi yónnee ko ñu def ko ci ay gaal mu bari lool bu ñëwee sëñ bi dafa wax ndaw la ne ko sottil ma ko fii mu sotti ko muy jeex di jeex jeex ba mu yàgg mu ne ko boo demee ne ko des na addi ji des na kooku dellu si ci maam Thierno ne ko man de damaa jaaxle mu ne ko lu la war a jaaxal mu ne ko sëriñ bi kat dama ko jox addi ji mu ne ma des na mu ne ko amul kumpa de su ko waxee rek am na de. mu ne ko waaye man damaa gisul fenn fu mu dese te doon dajale ay mu ne ko demal seet defukaay ya amul kumpa ci dara ñu dem fekk fa ay fifteen yu ndaw comme centime yi ni muy mel ñu ñu fekk fa ay fifteen yu ndaw yu xonk wan ko ko mu ne ko lii lay wax amul kumpa ci dara daw dawal yóbbul ko ko bi mu ñëwee wan ko sëriñ bi sëriñ mu ne ko waaw daal dugg ci biir génne aw fegg ne ko mu ngi nii bi ma amee ñetti weer ci géej gi la ma sama borom wax ne ma Cerno boo delloo ci réew ma ba ba ba at dana ci dëkk bu bu ñuy wax koso lem fay njëkk a bay ci nangam lay toll dama ko bindoon lii nga xam ne ay 15 la sax dama ko bañoon ba dama ko bind bind mu xonq mi ngi nii loolu kon wane ne na seen diggante boole gi leen suñ boroom boole tax na dara ci umpante mus ci am lu ne it sëñ bi leen nag ko bu ko daa bind bataaxel day wax naan Ibrahim yow Ibrahima mi nga xam ne sang ndaw ak sang ma yam ci man dara mus benn yoon mus ñu ko tàqali ko mosuñoo juyee ci dara it daana ko wax ne ko xaddut yi yow sama përëg li ma waxoon sànq ni li Haaruna doonoon ci Moussa doon na ko ci sëñ Tuubaa loolu sëñ bi seeral nag ko seeral na ko yit ne ko taxawaay ba naa Sayyiduna Aliyun amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nga taxawee ci man li gën a yéeme ci mbiram it keroog ba sëriñ bi wàcce moom it ñëpp ngi fi waaye moom la ñu woowee ñëwee ba essayé sëñ Modou Moustapha dafa wax sëñ Basiiru ne ko boo demee na nga déglu suñu bàyyi Cerno ba xam lu muy wax ci sëriñ bi ba ñëwee ñëpp ne teg mu wéeru ci mbéb gi nga xam ne moo ne woon fii ñu denc sëriñ bi di ming rek di tari alxuraan mu ne ko bàyyi Cerno sëñ Modou dane woon nañ laaj ba xam ndax sëñ bi la woon dara mu ne ko ah kay waxoon na ma dara kay daal jug jéego ay tànkam mbay si fii ñu dekk sëñ sëñ bi ne ko àndoon nañ ba fii de mu ne ma fii laay mujj gisee bindee fi keroog foofu lañ ko def loolu lépp di wane rek taxawaay bi mu amoon ci sëriñ bi ak matam ak pësseefam ak euh, doon gi mu doonoon wasiir ci kanamu sëriñ bi doonoon ko koy dimbali ci lépp kon nag saa yu ñu àggee ci bisam ñu war koo taxaw murid yëpp war nañ koo yëg war nañ koo xam te lépp luñ man ci alxuraan ak xasida ñu jàng ko defal ko ko addiyee du sax du tax sax ñu mu fay li nga xam ne defal nañu ko ci sëñ Touba waaye ñu wanee ko ko suñu yéene rek ndax bor boo mënta fay kat del def loo loo am rek dugal ca ndax bu ëllëgee ki ko seqal boo ko boo ko matalee wutit dana xam ne gor nga waaw loolu rek a taxoon moo doonoon yëllay ñu bëgg a def waxtaan wi ci moom li ñu ci xam wax ko it mi ngi mel ni géej rek nga sëpp ci dara génne la des ci géej ga ni mu baree li ñu waxut tam seq kook sëñ Tuubaa noonu la bare ñu ñaan yàlla fayal na ko te defal ñu taw feex ci moom taas ñu ci barkeem ba séef boobu mu amee woon ci sëñ Tuubaa mu fellal ñu ci loo xam ne dana mën a yéwénal sunu àddina yéwénal sunu alaaxira ci dara jaam ci barkeb liggéey ba mu liggéeyal sëñ Tuubaa te yàggal fi njabootu boppam gi nga xam ne ñoo ko wutu ci lépp ci pëstéef bi ci taxawaay bi ci mbooleem ku fi mas a nekkal sëñ tubaa la tàmbalee ca moom ba Seex Muhammadu Awa Balla mi nga xam ne sëñ Tuubaa ko yar ak sëñ Cheikh Awa Balla ak sëñ Mouhamadul Habib ñoom ñëpp sëñ Tuubaa leen yar ba ci sëñ Abdou Khoudous sëñ Cheikh mi fi jógee barki dem yàlla na ko yàlla dool li ak leer ba ci eh, sëriñ sëñ Abbas nga xam ne moo fi nekk ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tamit ko ak wér yàggal fi njaboot képp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu أعوذ بالله wa min kulli man lam yuhibbani min alrijali wannisaa wa inni u'iiduha bika wa dhurriyataha min alshaytaani irrajim rabbi audu bika min hamazaati sayatini wa audu bika rabbi an yaxduruun alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ala alsheykh alxadim wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwaani wa tamkin wa jaxal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa arsida bi jaxal bi jaahil mustafa kalaami ala aydaaka rabbi kal bokki jullit yi bokki taalibe yi dinaa buñ santee sunu borom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sant sunu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul tey gën a seeraloo sunu borom mi nu bind ak yonent bi sallallahu alayhi wa mi tax nu bind nu sunu cant ci Sëriñ Tuubaa cantuk xol ak gu làmmiñ ci biir ak ci biti di nuy mbokki jullit yépp mbokki taalibe yëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di del siwaat ak yéen ci lu ko mat ci ku ko mat di fàttali ko koo xam ne kenn waru ko fàtti te jot naa ne kenn fàttiwu ko muy as cheikh Ibrahima Faty maam Thierno di ko li mu doon ci sëñ Tuubaa ku ko doon xiyaas xiyaas ci lenn lu dul la Haaroona doonoon ci Musa wala Seyduna Aliyun li mu doonoon ci ku tedd ka sallallahu alayhi wa di ko xam ne léppam Sëriñ Tuubaa ci njëkk muy feeñ ak diirub li mu fu ne ba ci ginnaawam sax daraam gënut sëriñ bi li ciy finde mooy li jiitu muy gane àdduna bi mu tolloo ci waajtaay war a ñëw jamono suñ Mor Anta Sali mi nga xam ne mooy seen waajur moom ak sëriñ bi dafa wax sëriñ bi ne ko gan gii di bëgg a ñëw de ci laay xoole sa mbir su fekkee ñëw na di góor ma xam ne fa nga jëm danga fa àgg li nga bëgg li nga bëgg danga ko am muy ab listixaar kon tax na sëriñ bi taxaw ca ci diggam ak boroomam taxawin woo xam ne bi mu ganee àdduna ak liggéey bi mu ko taxawul ak fi mu féete woon ci moom findeel na ko ci lépp wax nañ keroog muy feeñ jamono sax sëriñ bi dafa taxaw ci néeg bi nga xam ne ci la doon ganee àdduna di wër néeg bi di tari alxuraan ci kaw bi mu feeñee rek mu bëtt loxoom ci permi joxe toqantal ji nga xam ne moo njëkk ci gémmiñam gannaaw bi mu jëlal ko boppam téye ko ci loxoom yi tedd ya dem ak moom ba ci biir àll bi mu ne fa ab diir bi mu dikkee ne leen bunt yi seytaanee am ba war a mën a jaar ci moom tëj naa ko nu ko tëjee nag moo ko xam bi mu demee ba war a mën a jàngit waajuram di suñ Mor indi Sali dafa jooyal léppam jëmale ko ci sëriñ bi lu mu xam rek sëriñ bi ko xamal bi mu koy jàngal sax lu yéene lu yéeme am na ci ndax téere buñ tàmbalee jàng bu demee ba xaaj wala mu weesu xaaj walla mu bañ a àgg ci xaaj bi sax sëriñ bi day jékki-jékki ne ko fuñ toll tey mu ne ko barab sàngam mu ne ko li ci des bàyyil mbokk dimbalee ko mbokk te bu xëyee lam jàngagut moom lay gën a dégg ci lim jàngoon loola di lu yéeme loo xam ne dox na diggam ak sëriñ bi sëriñ bi taxoo moom nag taxoo gu yàgg goo xam ne fu sëriñ bi masane rek falay ne jixaat ji sëriñ bi doon def jéppit ci biir ci xiif beeg tumuranke geeg marweeg jëm ci yàlla te bañ koo booleek dara fu mu ci masa toll rek moom mooma ko ànd àndin wu rafet woo xam ne dara musu cee ñaaw ba looloo waral keroog bi sëriñ bi jugee fii war a dem ci liggéeyam bu barkeel boobu moom la dénk lépp loolu jëlatul di wax kenn ndax ñëpp xam nañ ko waaye lii firndeel fi ko sëriñ bi tegoon rek ak ni mu doonee ndër ak ni mu ko doo ni mu doonee ndimbalam ci lépp mooy bi ko góornoo di woo booba ñëpp ngi fi waaye moom la tànn ne ko demal wuy jil ndax booba dañ ne dañuy woo sëriñ si moom la sëriñ bi wax ne ko demal wuy ci bi mu demee it ci ak matam akuk matam lim doon gouverneur bi mu waxee moom ki doon jottali ay waxam di def bu maam Cerno waxee mu seetlu tàng mu wax ko gouverneur bi bu gouverneur bi jottali ay waxam mooy mu seet laneen wax ko maam Cerno ci ak matam mu xam ne lii may wax ak li ni góornóor bi tànge nii juddowul ci li may wax daal di wax ki doon kaneen ne ko jëli kaneen koo xam ne ci xëy na bu dul taalibe sëñ bi it ku bëggoon sëriñ bi la ne ko kii may jottali samay wax damaa jàpp ne li may wax waxu ko damaa bëggoon nga ñëw jottali ma samay wax bi ko ko ñëwee wax góornóor bi ne ko kii kat nee naa dafa tuumaal ke ko doon jottali bëggoon man ma jot jottali ko ay waxam ndax dafa jàpp ne lim li muy wax yow waxula ko gornoor bi ne ko waaw loolu mën naa ne mu ne ko léegi Ahmadou Bamba laa koy laaj ci lum ne ndax boobu léegi dañ koy yónnee ay bataaxel yu bari te nanguwul wuy si maam Thierno ne ko nee ko benn bataaxel bu koy woo de mosu caa jot fekk ñi nga xam ne yàq ak ruuxale rek moo leen ñoroon dañ daa def bataaxel bu ñu bind sëriñ bi ñu denc ko. bu waxtu wi tontu yu li waree ñëw ñu wax gouverneur ne ko jot na ci bataaxal bi waaye nee na ñëwul ngir bëgg rek ay wi gën a tiis bi mu waxee noonu bi maam Thierno waxee noonu gouverneur bi nag ci la woyefal tàngoor wi newoon ci moom ne ko jab yable woon naa sax ngir ñu dal si ci kawam waaye danaa leen digal ñu toog jeewal suba ci waxtu wi bu ko fa fekkul nag bum ñu bett des na dal ci kawam mu dëppaat ànd ceeg coono yu metti ngir bëgg a ci sëriñ bi jiitu waxtu woowu ñu waxoon di jot sëriñ bi it dara ump ko ndax boroomam bëti boroomam lay gise gis na lépp ci guddi gépp mu ngi wax naan ndax ceer mi ñëwagul ñu ne ko ñëwagul ba bi muy julli fajar sëñ Abdou Lahad nettali na ko mi ngi naan ndax ceer mi ñëwagul bi mu jullee ba noppi fekk maam ceer nu es nee ñu ànd jëm ci kër gi mu di ko bëgg a nettali aw yoonam sëriñ bi ne ko Thierno dara mutuma wax biig ca ngoon ba nga taxawee lu ci lu mel ne ab jànj ceddo yi wër la na la wóor ne xorondom yi doon ndox ci sa tànk sax maa ngi jàkkaarloo ñoom na la wóor ne Thierno ma fenn damay liggéey rek sama njaboot gii rek laa la dénk ak sama liggéey bii foo leen mën a téye ci réew mi rek nag ma leen fi teewal ba ma liggéey ba delsi mu taxaw ci taxawaay bu rafet bu yéeme bu àndul ak dara ci ak matali lépp mu def ko ci matt coono yu ne it mu daj ko ci àgg na ci fu dem rek ñu jalax ko ba am na guddi goog walla ay guddi yooyu moom njabootuk sëñ Tuubaa gi amul ludul mm, benn baas bu mu am wala benn mbalaan moom am muur leen ci moom fanaan ci biti ci ron ak guy ci loolu la sañce daarul mën naan ndax boobu sëriñ bi da nekkoon foo leen mën a téye ci réew mi rek mën nga faa dem téye leen am na wérit gu amoon de goo xam ne lu ëpp ci njabootu sëñ Tuubaa gi mu fi bawoon ci lañ wuyjee borom ba mu demee ba yëfi kii mu ñaan boromam jaayanteeg moom ne ko su benn kenn ci njabootu sëñ gii mu fi bàyyi naratee dem maa ngi lay ñaar nga jël ma jël sama waajuru jigéen jël sama njaboot gi bàyyi ma fi njabootu sëñ Tuubaa gi loolu jaayante bu rëy la bu dara mënta fay la moo taxit bi sëriñ bi ñibbisee ña nga gisee ndar ci bis bii nga xam ne ci lañ koy wooteel bis biñ koy fàttali ko keroog bi ñu gisee ñoom ñaar ku ne nee na tekk ab diir bu yàgg boo xam ne kenn waxut sëriñ bi ne ko cer na ndax su fekkoon yaa dem bàyyi ma fi nii nga taxawoo yëf yi danaa ko mane noonu loolu lu rëy la ku sëñ Tuubaa wóoloo noonu bàyyee la fi noonu te it lim rafetal ci ginnaawu sëriñ bi liñ ciy wax lépp li ko gën a yéeme mooy kere bi mu gisee sëriñ bi nee na ko sa ginnaaw de jàngal naa fi ñeen fukki nit ñoo xam ne alxuraan man nañ ko nañ ko war a mane te xam nañ bépp xam-xam bu am bu bu bu bu ànd ak. bu bu bu ñu war a xam ci lislaam loolu mooy kàng fóore kàng boo ko déggee mooy ku man alxuraan fóore mooy ku ku ku ku jeexal téere yi ne ko nag sa ginnaaw jàngal naa fi ñeen fukki kàng fóore yoo xam ne lépp lu ñu war a xam xam nañ ko lépp lu ñu war a man mën nañ ko ci la ko bi waxee waxam jooju ne ko ndax su fekkoon ma yaa dem ma toog fi nii nga taxawoo yëf yi ndax dinaa ko mënee noonu loolu di ngërëm lu sotti lu wér lu ko sëñ Tuubaa gërëm bokk na ci firnde ngërëm loolu it dëkkam bi mu sancoon te muy ma naan bi sëriñ bi ñibbisee diir li mu amaat ci réew mi ci ak dal fala ko ne delluwaatu ci benn dëkk bu mu sanc delluwaatu fenn ndax booba xam ne liggéey bi jeexut te daa war a jàll fa la nekk ba ak demam gànnaar jot mu dem diir boobu bépp it tàqaliwu ko tàqaliwu ko sëriñ bi ci dara fu sëriñ bi ne rek fa lay ne ba ni sëriñ bi dellusee Jolof ba ni muy demee njaareem ci biir nekkub jolof gi ci la ko doog digal fekk suñ mbàkki kajoor wàccub liggéey mu digal ko ne ko na dem taxawu ji mbàkki kajoor ba mu fa nekkee ab diir ba njabootug suñ mbàkki kajoor gi dëgër mu woo wooluwaat ko yoon woo xam ne wala bokk dafa yónnee ci moom ne ko boo xëyee na xëyee mbàkki kajoor war aw fasam te bu mu ko dawal dawal bu gaaw na ko bàyyi muy doxeek sagoom mu tàmbali euh, njëlbeenu alxuraan fu kamil bi jeexee rek na sanc foofu te dudd ko daarul moxti mu xëyee mbàkk kajoor di tari ba téere bi jeex te santeeg mu tolloog foofu penc mi ne fi ñu ko denc tey mu sanc dëkk boobu bi mu ko dëkk sancee tumuranke gune fekk na ko fa ci aw mar ab xiif ñim àndaloon di ñuy jàmbaare jàmbaare léegi-léegi nit daana fa nekk ba mu yàgg dootu mën a muñ coono bi mu dem ba fa waaye mus faa jóge benn yoon lu ne it liggéeyale na ko fa sëñ Tuubaa ci wàllu liggéey bay ak lu mu am lu ne rek ndaw yi nii lañ daa tegaloo ndaw lu ñëw ba toog la leen ndaw dellu te yépp ay addiye la ñuy yóbbu di sëfub dund di ko yóbbu ba am na sax addiye bi joo xam ne bi nga ko yónnee sëriñ bi nga xam ne ab xaalis la dañoo jaay xëy na mbay mi yónnee ko ñu def ko ci ay gaal mu bari lool ñu bi dafa wax la ne ko sottil ma ko fii mu sotti ko muy jeex di jeex jeex ba mu yàgg mu ne ko boo demee ne ko des na addi ji des na kooku dellu si ci maam Thierno ne ko man de damaa jaaxle mu ne ko lu la war a jaaxal mu ne ko sëriñ bi kat dama ko jox addi ji mu ne ma des na mu ne ko amul kumpa de su ko waxee rek am na de mu ne ko waaye man damaa gisul fenn fu mu dese te doon dajale addi mu ne ko demal seeti defukaay ya amul kumpa ci dara ñu dem fekk fa ay 15 yu ndaw comme centime yi ni muy mel ñu fekk fa ay 15 yu ndaw yu xonk mu ñëwee wan ko ko mu ne ko lii lay wax amul kumpa ci dara daw yóbbul ko. bi mu ñëwee wan ko sëriñ bi sëriñ mu ne ko waaw daal di dugg ci biir génne aw fegg ne ko mi ngi nii bi ma amee ñetti weer ci géej gi la ma sama boroom wax ne ma Cerno boo delloo ci réew ma ba ba ba at sàngam dana sañ ci dëkk bu bu wax koso lem fay njëkk a bay ci nangam lay toll dama ko bindoon lii nga xam ne ay 15 la sax dama ko bañoon ba dama ko bind bind mu xonq mi ngi nii loolu kon wane ne na seen diggante boole gi leen suñ borom boole tax na dara ci umpante mus ci lu ne it sëñ bi bëri la nag ko bu ko daa bind bataaxel day wax naan Ibrahim yow Ibrahima mi nga xam ne sag ndaw ak sag mag a yem ci man dara mus benn yoon musuñu ko tàqali ko musuñoo juyee ci dara yëpp daana ko wax ne ko xaddut yi yow sama përëb li ma waxoon sànq ni li Haaruna doonoon ci Moussa doon na ko ci sëñ Tuubaa loolu sëñ bi seeral nag ko seeral na ko it ne ko taxawaay ba Sayyiduna Aliyun amoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa moom nga taxawee ci man li gën a yéeme ci mbiram it keroog ba sëriñ bi wàcce moom it ñëpp ngi fi waaye moom lañu woowi biñ ñëwee ba essayé sëñ Modou Moustapha dafa wax sëñ Basiiru ne ko boo demee na nga déglu suñu bàyyi Cerno ba xam lu muy wax ci sëriñ bi ba ñëwee ñëpp ne tekk mu wéeru ci mbéb gi nga xam ne moo ne woon fii ñu denc sëriñ bi di ming rek di tari alxuraan mu ne ko bàyyi Cerno sëñ Modou woon nañ laaj ba xam ndax sëñ bi la woon dara mu ne ko ah kay waxoon na ma dara kay daal jub jéego ay tànkam mbay si fii ñu dekk sëñ sëñ bi ne ko àndoon nañ ba fii de mu ne ma fii laay mujj gisee ak bindee fi kan foofu lañ ko def loolu lépp di wane rek taxawaay bi mu amoon sëriñ bi ak matam ak pësseefam ak euh, doon gi mu doonoon wasiir ci kanamu sëriñ bi doonoon ko koy dimbali ci lépp kon nag saa yi ñu àggee ci bisam ñu war koo taxaw murit yëpp war nañ koo yëg war nañ koo xam te lépp luñ man ci alxuraan ak xasida ñu jàng ko defal ko ko addiyee du sax du tax sax ñu mu fay li nga xam ne defal nañu ko ci sëñ Tuubaa waaye ñu wanee ko ko suñu yéene rek ndax bor boo mënta fay kat del def loo loo am rek dugal ca ndax bu ëllëgee ki ko seqal boo ko boo ko matale wutit dana xam ne gor nga waaw loolu rek a taxoon moo doonoon yëllay waxtaan wi ci moom li ñu ci xam wax ko yit mu ngi mel ni géej rek nga sëpp ci dara génn la def ci géej ga ni mu bare li ñu waxut tam seq kook sëñ Tuubaa noonu la bare ñu ñaan yàlla fayal na ko te defal ñu taw tawfeex ci moom taas ñu ci barkeem ba séef boobee moo amee woon ci sëñ Tuubaa mu fellal ñu ci loo xam ne dana mën a yewenal sunu àddina yewenal sunu alaaxira ci dara jaam ci barkeb liggéey ba mu liggéeyal sëñ Tuubaa te yàggal fi njabootu boppam gi nga xam ne ñoo ko wutu ci lépp ci pëstéef bi ci taxawaay bi ci mbooleem ku fi ma a nekkal Sëñ tubaa la tàmbalee ca moom ba Cheikh moom Mouhamadou Awa Balla mi nga xam ne Sëñ Tuubaa ko yar ak Sëñ Cheikh Awa Balla ak Sëñ Mouhamadul Habib ñoom ñëpp Sëñ Tuubaa leen yar ba ci Sëñ Abdu Xudoos Sëñ Cheikh mi fi jógee barki dem yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ak leer ba ci Abbas mi nga xam ne moo fi nekk ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tamit ko ak wér yàggal fi njaboot képp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.